Assalamualaikum. man la Ousmane Ba Goto man ma del suat pour ñu yeggali waxtaan bi namoon na ma ñu def ben eh, waxtaan bu xawa gatt rek xam nga ci campagne électorale yu présidentielle 2019 où on a que, ni que Idrissa mais Madické Niang ak que euh, Issa sal, ñëpp Macky Sall lañu doon donc il faisait semblant pour dem ci élection yi nii sóob euh, tas coalition jot na cest à coalition bi sunkoo bokk parce que Macky joxoon na leen xaalis ñoom ñëpp quoi donc Macky xamoon na li mu doon def donc en réalté Sonko benn adversaire rek la amoon muy mag Sall ñeneen trois yi c'était aussi mag Sall donc Sonko avait devant lui quatre Macky Sall parce que boo jëlee Macky Sall nga jël Idrissa Seck jël Madické Niang jël Issa Issa Sall day nekk ñeenti Macky Sall parce que ñoom ku si nekk Macky Sall la nga doon liggéeyal donc c'était ñeenti mag Sall contre benn Ousmane Sonko donc boo xoolee boo réfléchir bu baax nga def calcul bi Ousmane Sonko day génn deuxième position en réalité donc loolu mooy deuxième tour dafa waroon am automatiquement mais mag yi xalaatu ko sax parce que ñoom. organiser nañ li ñu waroon organiser ba sàcc pour sàcc élection yi quoi loolu moo am sénégalais tamit jóguñu benn affaire rek moom ci xaw a métti mooy li Ousmane Sonko reconnaître victoire u Macky Sall ok mënoon na ko bañ a reconnaître parce que à la fin ñun ñëpp xam nañu affaire bi dañ ko lëba ji ok léegi pourquoi Idrissa Seck pourquoi Macky def choix am ci Idrissa Seck il faut nit ñi xam benn mbir Idrissa Seck est une personne très intelligente boobu dafa fees dell mais il est pas honnête il est pas honnête quoi comprendre intelligence bu bu mal honnête la euh, mais avant benn job boo xamante ni loolu la ko Macky soxla woon ba léegi ñu ngi ci job boobu mais après Macky da koy dump out c'est-à-dire dañ naan en anglais dump quoi da koy sànni ok mais Macky daf koy gëmloo ni kedap daf koy jox pouvoir bi dem ko mais du yàgg dara da ngeen gis le ko maké di def man maa leen ko bind len maké da koy ray politiquement maké amna na dauphin dauphin boo xamante amul kenn ko xam ku dul mom moom rek moko xam quoi man Ousmane Ba xaw ma amul keneen ko xam sa fam sa xam ko maké sal rek moko xam parce que maké amatul confiance ben benn doomu aadama ñu ko wër ñëpp wóolootu ci kenn parce que toujours dañ koy trahir quoi parce que lu mu wax ak nit après nga gis ko ci ci presse bi quoi donc motax tax amatul amatul confiance ci personne mu ngi liggéey li muy liggéey pour départam quoi c'est à dire mu ngi mu ngi préparer départam quoi comprendre mais waxu ci kenn dara et c'est sûr que dafa am du idi du du du isa Sall du kenen ak do du Amadou Ba du Massamba du Mademba koo xamante ni gars musuñu ko se gis lay don bo ñu amul sens quoi surprise lay don parce que force Macky day jox pouvoir bi koku dem parce que bu ko deful rek mom kasso mom ak famille ak ay ministre yu bari dañ après kasso la ñuy la ñuy la ah. la ñuy ah. pourquoi Issa sal? Issa sal, c'est un mathématicien un mathématicien de formation donc un, un mathématicien et informaticien il est mathématicien et informaticien la plupart informaticiens yu bëri ay mathématiciens lañ ko Issa Sall il faut ñi ñi xam ni que dafa spécialisé wu ci système de vote électronique Afrique ba Afrique daj tay buñ doon choisir 10 personnes yu gën a xarañ ci système de vote électronique étatsal du génn ci 10 personnes yooyu bu nekkul première personne dina bokk ci première 5 personnes yi kooku sûr et certain ñi ko xam xam nañ loolu ci moom donc Macky Sall da koo soxla Macky da soxla pour élection législative yi ñu jëm da koo soxla pour élection locale yi ñu jëm Macky da ko soxla parce que bobu dafa fees dell màcc ci lu jëm ci mbiru vote surtout vote électronique loolu motax mu nomé ko ministre conseiller en TIC ok ah Issa Sall dafa nax sëñ Moustapha si da koo nax parce que sëñ Moustapha Sy dafa amone confiance bu mag ci moom moo taxoon mu jox ko parti bi ba ngeen intelligence am ak ni mu mbiru.

ñeneen nag ñëpp ñi nga xamante ni Idi démarché na leen ba nax leen ba duggal leen ci coalition boobu c'était pour wàññi doolewu Pastef doolewu Sonko lañ doon wàññi quoi et ils l'ont réussi donc moo tax ma naan euh, may may wax toujours Pastef nañ nañu liggéey quoi nañu massifier seen partie ba nga xamante ni euh, buñ demee élection dinañu am euh, dara quoi parce que parti bu bu liggéey dëgg balaa élection yi di taxaw war nga xam fan ngay gañe ak fan nga dul gañe parce que Birame Souleye Diop moom xam naa li ma wax parce que ma saa ko envoyé ay documents yoo xamante ni bu ñu ci sukkandikoo dëgg dëgg dëgg liggéey ni ñu waree liggéey je pense que ñoom avant élection yi di ñëw sax war nañ xam ban commune lañ war a gañe ak fan ak fan ak fan lañ war a gañe quoi dans les normes quoi euh, ma bëggoon aussi leeral benn mbir xam nga man. de passif, je le dis souvent Je leen ko Je suis un membre passif. donc man xaaruma dara ci passif passif, passif jox responsabilité ou quoi que ce soit parce que su ma bëggoon loolu damay jënd carte de membre bokk ci bureau c'est-à-dire fi ma dëkk bu assemblée générale jotee ma je comme parce que suis un membre je suis un droit bok da may am droit poser sama candidat da may am droit wu parole may am droit wu kaddu quoi mais duma membre parce que awma sen carte ba àdduna du tukki duma am sen carte parce que man wuma carte ben parti comprendre ngeen kan, bokkuma ci ben parti eh, donc awma fa bat quoi donc wuma fa bat mais comme je dis rek depuis 4 ans yu ñu guen Sonko dama gëm projet de société quoi donc moo tax moo koy soutenir mais surtout lu tax moo koy gën a soutenir mooy liñ koy xeex di ko toroxal ci loo xamante ni du dëgg quoi du yoon bañ ko defee fii aussi xalifa Sall tamit même taxawaay laa ci am euh, buñ ko fi defaatee keneen tamit même taxawaay laa ci am quoi mais bu dee dañ ko fay def koo xamante ni euh, li mu def du yoon bu boobaa du ma ko du ko taxaw quoi du ma ci wax parce que man képp kuy jalgati yoon mooma du ma défendre quoi mais képp koo xamante jalgati woo benn loi ba pare ñu bëgg a dal sa kaw bëgg la toroxal parce que dañ laa ëpp doole man lépp lu ma ci man Ousmane Ba dinaa ko ci def ci biir loolu bi mbiru affaire Sonko ak Adji sar bi xawri Sonko dafa genn def sorti wax ni amul lu mu massothérapeute amul lu mu fayee un garde du corps permanent amul lu mu fayee massothérapeute moo tax mu doon dem ci salon boobu quoi de temps en moo gën a yomb sa massothérapeute buy ñëw sa kër di la di la massé dafay seer garde du corps permanent nee na dafay seer nee na léeg sax ñu couper courant am parce que xaalis bu mu bu mu bu mu war a fayee courant yóbbu ko dina ko dina ko léeg-léeg dimbale ay ay prisonniers wala femme yu def transformation des produits alimentaires wala ci euh, orphelinat yooyu noonu xale yi nga xamante ni seen waajur dañu leen sànde wala seen waajur yi décédé wala yooyu euh, mu nekk lu rafet ci waa donc loolu bi ma ko déggee mu wax ko sama yaram daw trop ma ne vraiment suñu responsabilité la ñu jàppale Sonko quoi parce que ñun lay xéxal lolu motax ma créé woon ben levée de fonds levée de fonds pour chaque mois ñu jox Sonko un million CFA fi ba 2024 lolu ça n'a rien à voir avec levée de fonds yu Pastef di def parce que bima défé levée de fonds bi sur euh, GoFundMe bi gars yi joxee ba mu mot un million rek dama ko fermer dama ko arrêté quoi dama arrêté affaire parce que comme dañoo wax chaque mois un million la bu un million jotee rek dañ koo war a fermer quoi man ma joxe ñeneen joxe liste bi yëpp mu ngi fii léegi bi loolu amee ma jël xaalis bi ma jox ko benn membre Pastef bu nekk fii bu tudd laa Ndiatta ñëpp xam nañ ko fii vraiment il est vraiment actif ci mbiru communauté sénégalaise bi nekk fii Montréal ak aussi ci mbiru Pastef mu nekk grand boo xamante ni dama am confiance ci moom moo tax ma jox ko pour mu yóbbul ko Sonko euh, bi ko yóbbee mu defal ma ay capture d'écran wu envoi bi ria mais daf ko jox benn mbokkam pour mu yóbbul ko Sonko ba moo ko envoyé ma def benn publication ci sama mur pour xamal nit ñi Sonko

mentionné naa ko si sama publication bi mais man maa jël sama initiative bopp comme ni ko fi nii nañ jëlee rek am na patriote yu bëri ay nit yu bëri yu nekk Europe ak feneen feneen jël jël jël jël ay initiative pour pour pour jàppale Sonko d'ailleurs euh, bokk naa bi c'est une fille bu nekk Europe moo ko initié quoi comprendre donc je me suis comme Sonko dafa ne amul lu mu ma fayee massage ak amul lu mu amee un garde permanent léeg-léeg dafay am cette difficulté pour fay facture courant je me suis dit la logique voudrait que nous ñu def dara quoi donc si son Sonko refuse cet argent wala mu ne nañ ko ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche son kon Sonko xaw ma ndax soxla na xaalis wala soxlawul xaalis mais d'après li mu wax loolu la logique voudrait qu'on qu'on l'aide quoi comprendre ba ci biir loolu aussi euh, man bind naa Sonko directement expliqué ko ne arrêté nañ levée de fonds bi quoi d'ailleurs am na ay nit yu bëri yoo xam bind nañ ma ne ma grand je dama bëggoon participer pour mois d'avril bi nii mooy initiative bi nga defoon pour un million chaque mois pour Sonko pour mu mun ci fay ay séance de massage am ak sécurité am quoi ma ne ko euh, de fonds bi arrêté nañ ko ko parce que d'après Diémé Ndiatta d'après Diémé de laa wax. nee na Sonko ñu arrêté levée de fonds bi nee na Sonko nee na ñu arrêté levée de bi man Sonko waxuma ko directement ko mais man bind naa ko quoi maa ngi xaar maa ngi xaar réponse am nag comprendre euh, loolu laa bëggoon leeral rek mu leer un peu quoi aussi affaire farata farata. Farata benn association la fondation la boo xamante ni ay sénégalais yu nekk ci diaspora bi ak ay sénégalais yu nekk Sénégal yoo xamante ni euh, Sénégal daf leen a ñor yital leen te ñu te ñu te ñu bëgg ko trop ci seen xol ñoo toog waxtaan ni te man ci laa bokk ci groupe boobu ñu toog waxtaan ni. dañoo bëgg venir en aide les jeunes sénégalais yi nga xamante ni dañu am problème mu trouver liggéey parce que Sénégal boo xoolee problème yi fa am yëpp li ko gën a andi mooy chômage yu jeunes yi quoi mooy ñàkk liggéeyu jeunes yi. loolu ñu may déglu depuis longtemps xam nañ ni dama cee wax a wax a wax a wax wax wax wax ba sonn wax naa ci ba tas maa ngi ciy wax depuis quatre ans maa ngi ciy wax te andi naa ci ay solution yu bëri andi naa ci ay idées yu bëri mais. xamal gouvernement bi rek ñoom boo toppul seen ginnaaw di leen politique la ah, ñoom loola wax duñ ko duñ ko faale te pourtant te pourtant c'est des solutions c'est pourtant c'est une solution qui peut régler le problème tout de suite amul suba amul gannaaw suba amul xaar ci tey tey tey Macky Sall mën na jox cent et quelques mille jeunes sénégalais mu jox leen liggéey te comprends mais en réalité Macky Sall emploi wu jeunes yi intéressé wu ko sax Macky Sall développement wu Sénégal intéressé ko intérêt wu France la moo ko intéressé moom lay défendre depuis mu ñëw ci pouvoir bi ba léegi wu Rufisque nee na DER bi nga xam mooy finance jeunes yi te te te état bi di ko financé xaalisu Sénégal di ko jox xaalisu Sénégal pour muy financé jeunes yi nee nañ DER nee na dépensé nañ un milliard sept cent millions pour financer ay projets jeunes ci département de Rufisque préfet bi génn def sorti ne nee na gisul un franc te dans les normes xaalis bi ci moom la war a jaar parce que moom moo fa représenté état bi moom préfet dans les normes jeunes yi foofu la war a déposé seeni seeni seeni seeni seeni seeni seeni seeni projet seeni demande après préfet bi jël ko yóbbu ko DER te DER dafa war a am sa gise ci biir préfecture bu département bu nekk donc xaalis boobu fan la dugg amul benn jeune amul benn jeune bu nekk Rufisque bu la mën a wax ni jot na financement léegi un milliard sept cent millions fan la dugg kon ci poosu waa DER la judd cest directeur u DER ak ay ñoñam ak ay nitam ay sàcc lañ ñu ñuy gouverne ñu ñuy diriger c'est des voleurs ay sàcc lañ donc loolu moo tax farata jóg pour jàppale ay quelques jeunes premier acte bi ñu def c'était pour financer benn jeune bu handicapé boo xam dafa soxla frigidaire euh, pour muy jaay ndox congélateur pour mu jaay ndox ak glace quoi jox nañ ko suñu lu ñu mën a ah. on a aussi financé l'autre jour euh, benn nit boo xam tirage au sort lañ def ne rek pour xamal nit ñi mouvement bi euh, association bi juddu na ñu jox vingt cinq mille benn jeune pour participer ci ngalax bi parce que chrétiens yi Sénégal ñoo gën a sonn sa musulman yi parce que xam nga Sénégal musulman yi bu ñu rayee seen xar pratiquement kër gu nekk day ray xar ci ñoom lay yem et tout ça et puis voilà bu ñu ciy joxe sax ay tànku bàjjen la ñu joxe ay tànku umpaañ ay tànku ma demb ak tànku ma sàmb chrétiens yi bu ñu waree seen ngalax bu yëpp pratiquement musulmans yi ñoo koy lekk bu leen fàtte ne chrétiens yi ils sont de cinq pour cent au Sénégal te pratiquement musulmans yëpp ay jot ngalax donc loolu dépense bu bëri donc on a participé benn somme pour waa ji def plus de ngalax pour mun ko mun ko partager avec communauté c'est-à-dire avec ses ses voisins et tout ça ñu jox. cinquante mille benn benn benn benn une fille boo xamante ni dafa commencé business bu ndaw di jaay ay parfum ak affaire yooyu mais mu soxla woon plus un peu de renfort ñu renforcer ko tuuti quoi vraiment ay actes yu ndaw la mais mën na changer vue benn nit léegi suñu prochaine étape on va former quarante cinq jeunes quarante cinq jeunes département bu nekk quarante cinq département yi département bu nekk dañ koy choisir benn jeune pendant une semaine nous ñep dañ leen di Dakar former en coiffure ok ñu salon 45 jeunes donc on va ouvrir 45 salons salon bi bu dinañ ko occuper dinañ former nga wat former après dinañ entreprise c'est-à-dire nga Euh, ak lépp quoi nga xamante ni sa entreprise day légal après ñu jàngal la nuy gérer une entreprise c'est gestion bi c'est très important ne la par exemple bu fekkee mille francs ngay watee par tête nga wat cinq têtes par jour par exemple 5000 la 5000 yi dañ la wax ñaata mooy dem ci loise bi nga xam moom ngay denc nga xamante ni pour fin mois chaque jour li ngay denc pour loolu mooy dem ci loise la wax ñaata ngay denc à côté pour mu dem ci électricité parce que bu ñu ubbi euh, salon bi dañ lay wutal compteur woyofal ok nañ la wax ñaata mooy dem ci courant bi après ñu wax la ñaata ngay ngay moom yow nga xamante ne nga ko def si sa bopp say besoin personnel sa lekk sa naan sa war ak ñaata ngay épargne loolu épargne ah moom mooy tax fii ak deux ans trois ans quatre ans nga am loo ubbi peut-être beneen salon teg fa keneen sa mu wala loo jëndee terrain wala loo defee leneen ak leneen wala loo gën a sa business wala dem ci beneen genre de business wala au cas où sa nga feebar yàlla tere nga am loo fajo ok wala leneen ak leneen comme Sénégal faju du du gratuit ok loolu mooy gestion c'est très important nga jàngal ko nit ki mu xam lan gestion quoi nu ñuy gérer une entreprise buñ jógee ci loolu euh, jeune bu professionnel Euh, pour pour pour pour pour salon coiffure nañ la jëndal lu tolloog trois machines nañ la jëndal matériel bi ngay soxla yëpp dinañ la ko jëndal installer la ko installer la lëpp comprendre bu bu fekkee xaj na sañu fay la un deux trois mois sa sa sa sa location magasin bu fekkee donc ko looy nga dem parce que Sénégal il faut nit ñi xam il faut gouvernement bi xam il faut Macky Sall en personne xam ñi gën a nekk. dans le besoin ñi gën a sonn Sénégal ñi nga xamante liggéey liggéeyooyu mooy jeunes yi nga xamante ni jàngu jànguñu quoi su bëri suñ tur sax mënuñu ko bind amuñu benn formation professionnelle parce que ay jeunes la yoo xam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy nekk si si famille yoo xam mënuñu leen fa sax fam père de famille boo xamante ne ay lekk ay naan la tal talul jëndal ay blouse wala ay cahier wala ay livre wala fayal doomam mu jàng wala c'est vrai que

il faut ñu jàppale leen parce que dellu école weesu c'est c'est c'est c'est trop tard parce que mënoo am entre dix-huit ans vingt ans vingt quatre ans vingt cinq ans naa da ngay delluwaat ci ban pour pour ay di def ay si yu kenn xamul âge boobu tamit mënoo dem jàngi métier parce que Sénégal métier ñu ñëpp xam nañ ñu koy jàngee ci atelier tailleur ngay nekk wala ci atelier mécanicien wala ci atelier menuiserie màggaale ko quoi màggaale ko ñu lay yónni ngay jënd këriñ di boyali fourneau di jëlee añ di dagg fii di kii fii di bale fii def affaire ñàkk fule ngay jàngaale ça va te prendre vingt ans wala quinze ans avant ngay mokkal métier bi normal léegi koo xam am na vingt ans après nga bëgg mu dem jàngi métier quinze ans wala dix ans am pile de trente ans trente cinq ans waaye mënul nekk bu tolok niveau problème jeune jeunes yu quoi té idée yang fi du jeex idée yang fi du jeex yoo xam ça demande pas ay trois cent cinquante milliards yu ñu ça demande pas ay trois cent cinquante milliards yu ñu débloqué am ci ay idée yo xam soxlawul dërëm donc pour vous dire rek que Macky Sall day politique rek problème Sénégal intéressé wu voilà donc arrêté nañ levée de fond bi ok beneen levée de fonds bi nga xam ne ci même levée de fonds bi la woon mais ñu ngi ko defoon ci jàpp si sur jàpp si boobu ba ma duggee ci compte bi amul benn option bu may wax ne mun naa ko arrêté mais ki ko moom xam naa ko mun naa ko bind pour mu mu mu. arrêté quoi quoi d'ailleurs ailleurs dinaa ko bind tey pour me supprimer à amul problème boobu lañ fa lañ fa lañ fa collecté sa cent et quelques mille parce que boobu kii quoi animé wu trop quoi voilà euh, je pense que dorénavant on va parler plus de solutions que de critiquer quoi je pense qu'on a critiqué pendant longtemps on va on va on va ñu ngi leen di bàyyi xel nak ak bàyyi beut luñ fi def lu xam war ñu ko fi def dinañ wax ci ah, mais je pense que il est temps ñu commencer andi ay solution té avec farata bu neexee yàlla nañ andi ay solution yu bari vous verrez ce qu'on va faire on va faire des choses extraordinaires xaruñ ci kenn nak groupe bi ils le font avec leur propre moyen avec leur propre fond vous comprenez léegi nag buñ ñu demee ba ci bir ba ñuy gis ni aussi euh, que dañuy soxla euh, participation sénégalais yëpp aussi je pense qu'ils ils vont l'exposer d'une façon boo xamante ni dañ ko comprendre comme intérêt intéresse aussi nga nga nga participer mais pour l'instant ils le font avec nous le faisons avec avec nos propres moyens bëriwoon nag ma bëggoon aussi ñu bëri ñoo xam ne ñu muy bind naan ordonnance wala feebar fii wala ordinateur fii wala lii ak fii l'ordinateur qu'on a donné l'enfant jotagu ci sax d'ailleurs parce que affaire bi GP moo koy andi ah du on peut pas donner des <laughs> ordinateurs à tout le monde ordinateur bis na di jar trois cent mille wala quatre cent mille wala cinq cent mille mu amuñu lu bari quoi euh, farata c'est pas du pour loolu quoi farata du pour ay ay ordonnance wala ay affaire personnelle wala non farata dafa concentré wu ci benn sujet ci benn domaine moom mooy création de l'emploi pour les jeunes muy jeune bu jigéen bi wala jeune bu góor bi nag ah yëpp jeunes lañu rek c'est des sénégalais bu si nekk on va trouver des solutions on va trouver des solutions pour avec notre manière quoi avec notre façon avec nos moyens quoi on peut pas régler tous les problèmes mais dinañ ci taxaw parce que bu amee tam beneen mouvement bu judd bu bu taxaw ci loolu am beneen yeneen groupe de jeunes yu créé aussi taxaw ci loolu léegi ngeen gis problème yi wàññeeku léegi ngeen gis affaire yi changé parce que nit bu amee affaire bu ndaw boo xam da ciy xëy chaque jour di ci am benn somme bu ndaw sax di gérer ay besoin ma ah, meram day gën a wàcc quoi dootul toog di mer di ko deful dara dootul nerveux trop quoi day commencé am espoir da gis mu gën a kër gi day gën a bëri jàmm parce que du ko sax faf yendu loolu la Macky Sall war a xam quoi wala comprendre ci boppam voilà maa ngi leen di sant di leen gërëm <laughs> arrêté wu ma jàppale Sonko nag nay leer li ma commencé woon ci laa nekk ba léegi du ma ko bàyyi mais buggoon naa leerale rek c'est vrai que parce que bëri na ñoo xamante ni <laughs> faamu ñu ma trop quoi <laughs> je comprends nag leur agitation. Pastef surtout Pastef Canada yeneen membre Pastef mais euh, man il m'intéresse pas moi c'est Sonko qui m'intéresse vous comprenez te fekk gisuma ko mu soppeeku toujours rek maa ngi ci ginnaawam te lépp lu mu ci mën ci saar ak ci baatin dinaa ko ci def quoi voilà yaa ngeen jëf di leen bëggee bu wër Sénégal ca kanam rek bu neexee yaa jëf